ma ne ko dindil ma lii dafa metti mënuma bu ko waxati dërëm day jigéen day ñeme lu metti comme ñuy fàttaliku suñu yaay jooju nga xamante ne moo ñu daan digal lu baax di ñu ko def loo kon déggéen yàlla na suufu tubaa oyof si kawam foofu mu nekk gënal ko fii mu jóge ñun ñu ngi koy jooy ba tey te mu suñu xel ba tey te duñ ko fàtte benn yoon ndax ku toog fii di wax ci ay gestam ngay waxee kuy def ci ay gestam ngay defee ku solo moom nga solo comme déggéen ba tey yaa suñu xol fii fàttewuñu ko euh, li nga li nga xam naa ne tey moom tey mm-hmm. dina xaw a metti torop mais dinañu jéem a oh. bés xol yi euh, te sant yàlla rek parce que référence la royukaay la liggéey na fi liggéey boo xam ne ni euh, képp ku nekk si millier bi nga nekk jigéen yaakaar naa ne tey war naa mën a doon sa référence war a doon sa sa sa royukaay ndaxte depuis fa mu tàmbalee la woon muy RDV muy def confidence ba yàlla indi ko fii tey mu nekkoon di jàppale ay doomu aadama kon nag rek euh, nee naa ko moom référence la ci milieu bii ñu nekk. Euh, xam nga euh, man début TFM dama bokk ak moom ay ay plateau yu bëree bëree bëree bëri. fu ne début TFM tout le temps mun naa am nee la bàyyil simple bi. jigéen da ngay defaru na dëgg del defaru del maquillage mu ne ko taa déggéen bëgguma maquillage mu naa ah, ma noonoo danga nga war di defaru nit booy génn sax ngay dem boutique ba am na noo xam ne ni mhm. war nga ko war nga ko mën a mel kon koo xam ne da doon jàngale yéene ñëpp jàmm mhm. li mu bëggal boppam loolu la bëggal ñëpp ñëpp mhm. boo ko gisee sourire bi ngay ngay njëkk a gis xam naa li ñuy def rek mooy miyaa nañ dem seetaan image yi après dellu si waat yéen di ngeen tooyal sama xol bi. gis nga dimanche bi tey yëpp xëjee ko xool. waay waay waay yaay. sama baay bi teel. aduna ko mën a juy luy ko mën a juy luy luy wéy Euh, lii mooy àdduna demal maa ngi ñëw la kon moo tax rek euh, def lu baax rek am solo euh, def lu baax wax lu baax jëfee lu baax ba boo fi jógee rek jëf yu mel nii nit ñi di ko fàttaliki te xam ne àdduna dara dara dara dara dara dara jaru ko fi façon solu bu ne taa déggeen solu na ko façon sañse bu ne taa déggeen na ko façon mbaax bu ne lu rafet lu ne boo waxee mu ne la ma noppi gar mi laa yor duma ma dégg loo xam ne safaan wala donc loolu yëpp yeete la euh, nekk nit koo xam ne ni euh, bokk ak moom plateau lundi ñuy tourné waxtu waxtu dog jot xamuñu woon sax ndekete taa déggeen dafa wooroon <laughs> li nekk moo doon àddina ci bi yëpp ba timis ma may ma ma parce que damaa wooroon ma wooroon woor rek lay damaa wooroon je me rappelle tout weeru safar bi woon fois <laughs> euh, émission boobu émission togg maa ko invité woon mais coono boobu yëpp mais noo que ne taa déggeen dafa woor allah franchement euh, yal na ko yàlla lafal cat tey yal na rëccu yal na rëccu li mu yàggee woon àdduna yal na ko foofu gënal euh, vraiment euh, tey xam naa ne moom xam nga man moom maa gën a kii moom il faut ñu xaw a ñu xaw a mm. dëgër dëgër lu manoo tuuti ah? ko yow mii kenn du yow <laughs> ah? ndax sa ku gaaw a jooy nga waaye lii tey képp ku ko setaan sa tooy na muy yow muy man mm-hmm. ñun ñëpp mais nag dañuy delloo suñu xel si yàlla te xam ne yàlla mi ko soxla moo ko jël mm-hmm. ni ko soxlaan fii la ko soxlaa te tubaarkalla macha allah rafet nañ jot ci moom ndax éduqué woon nañu éducation bu baax bëggoon bëggoon sañse bëggoon sañse te ñun ñu fi bàyyi tamit ñun ba tey kenn euh, ñun ñëpp ñu ngi def lim ñu fi bàyyi woon comme defe naa ne tey jii moom it fa mu ne xolam sedd na. parce que tubaarkalla macha allah sànq bi ñuy solo Mado dani du sol yi day solo man na ko sañseel ba mhm. parce que moom dafa bëggoon kuy sañse. dëgg la man ko sañseel ba rafet ñu sañse ba rafet fa mu nekk. mu xam ne ñun ñu fi bàyyi woon. mujjewuñu puso bi mu réer mhm. te yal na ko yàlla yiir leeralal bàmmeelam oyofal ko ndax euh, jàngale na fi nit defar na ay kër mhm. jàngal na fi nit ñu muy toogee sëyam jàngal na ni jigéen mhm. dafa war a oyof yor noppi garmi yor gémmiñu gaan mi da ngay gis lu hmm. ñaaw yor bëtu gaar ko ah comme taa déggéen daal tubaarkàlla macha allah wallaahi tubaarkàlla ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal daal wallaahi wallaahi allah dañuy dellu di sant yàlla rek comme ni ñu ko waxee rek dañuy wax alhamdulilah ala kulli aal loolu dafa am solo ndax dégg naa ustaas di ko jàngale natt lu mu diis diis nit ki da nga koy sante sunu borom moo tax alhamdulilahi ala kulli aal bi may ñëw dama ne woon du ma jooy ndax li may jooy jooy naa ko ba noppi déggéen sax ni ma ko war a jooyee yàlla xam na ne jooyuma ko mm-hmm. ndax bi mu may dudd di dem boobu mi ngi ma wàcc maa ngi wan lor te loolu munul ànd ak jooy foo dem docteur yi nee la àndul de ngay muñ di wanaasu te loolu da nga koy gëm ndax dund nañ ko waaye sant yàlla moo tax ba tey man xam naa ne di ma war a jooyee yaay jooyuma ko ba tey moo tax démb ci guddi sama xol tooy waaye bu ma ñëwee tey gis macha allah ñoom Mia ak waa télé gépp teg lii dañ koy sante sunu borom waaye kii dañ koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla nañu yàlla na ko yàlla am solo xamante ne dafa bëggoon lu baax. déggéen ak bëggoon lu baax. may firnde laat ak di seddalaat ni àddina bi may xam Adja déggéen yi yàggul. Mhm. six ans kese la. am na ñu ma ca jiitu fop am na ñu ko njëkk xam. Mhm. waaye peut-être yàllaa dogal sama digganteek moom mel noonu ci six. at donc juróomi at ak benn. Mhm. waaye mel na ni moom moo ma meññ jur premier jour bi may njëkk gis daf ma xool ne ma sama res nga mhm. ma di ko yëg léeg damay wane sama cofeel ci moom ba damay rus ndax géy njooro ba si bàcc tégg balla ak maram balla mhm. moom kenn gënu ko ndax gëm naa ne man sama yaay ku yiw la mhm. waaye mbaaxam ak yiwam ak léppam moo bàyyi sax tey ma xër-xër boo xamante ne ci déggeen waaye léeg sax mun nga jëfee nit gàtt xel ne kii dafa xeb waajuram mukk man doomu waajur laa dama bëgg waajur muy góor muy jigéen mm. muy pàpp muy yaay waaye nag kii da cee rawat seede laa ci bëgg bi nga bëgg dafa baaxoon mm-hmm. bëgg lu baax bu doxoon xet gi bu pare fonkoon ñëpp waajur bu baax mm-hmm. sa yaay mu jur la mm-hmm. ki nga xamante ne moo la meññ meññ laa la wax de kilo jur doom da ngay bàyyi mu nekk doomu ñëpp ndaxte doom bi jëriñ mhm. kenn xamu ko mun nga jur sa doom te du la jëriñ nga gis doomu jàmbur dem jëriñ la mhm. jigéen ju baax bu ne boo juree doom nga gis nit ku baax jigéen bu baax da nga koy bàyyi mu yaral la sa doom wala mu am lu mu yokk ci yow kon taa dégéen mhm. gàcce ngaalaama waaye sa yaay tamit gàcce ngaalaama parce que bu ko neexoon tamit du ko def waaye dafa mhm. am lu mu gisoon ci taa dégéen mhm. ba moo taxoon mu bàyyi la ko ak millier bi nga nekk te taa dégéen nekkoon ci milieu bi mu am lu bari lu mu la ci xamal kon voilà donc du du ku nekk nit ku nekk da ngay am foo xam ne foofu ngay féete dëgg la waaw donc yàlla moo leen boole leen boole. wallaahi yaa ko bëgg yaa baax miyaa lii yëpp ay liggéey yu miyaa la waaye tamit dañu ci am tamit koo xam ne kooku tamit duñu ko mus a fàtte. parce que foo gisoon waa Alaaji Njaaylo moom it foo ko gisoon tey télé bi naal télé bi tey ak euh, suba la ki euh, kii euh, Karem. àllarba ah, àllarba ah, Karim Samb gis nañu tamit eh, ki nga xamante ne moom mooy Mariane mu wax eh, wax bu am solo loolu mooy ne nit dina fi jógee mm-hmm. mm-hmm. waaye di ci bàyyi jëf joo xam ne bu rafet boo xam ne mën naa jëriñ mm-hmm. askan wi mën naa jëriñ àdduna eh, bu ñu jëlee benn exemple amoon na ay moment réew mi xawoon na yëngatu waaye dañu dem xooli ji maam Abdoul Aziz Dabakh kàddu yi mu waxoon ñu indiwaatal ko tegalaat ko nit ñi te ak wax yooyu nu mu yàggee te ba léegi ni wax yooyu ñoo defaraat hmm. kon nit nit ku nekk lii hmm. doomu aadama bu nekk dañu toog fii ñun rek xamuñu kañ la ak hmm. naka la yàlla rek a xam moo tax përti përti beeg dara jaru ko fi dara jaru ko fi yéenante lu bon leeg yëkkante lu bon leeg waxante lu bon leeg ana ñu ñoom tey nekk ñu fi ñun ñoo fi nekk waaye ëllëg dinañ toog tamit ay nit ñu waxal benn jour moom ak caat. ndeysaan taa diggéen ak caat ñu daje si salon Fatlay. Eh, Fatlay Kena Amadou Boubacar waaw jour boobu ñu ngi fa añee ceeb bu ceebu jaga bu xonk bu neex sax mu jox ñu si ma ne ko comme que lii chaque jour fii la <laughs> ma yow bokkoo si di ma siis yaay dégg ni ah man daf may mhm. mu ne ko ñëpp jur mu ne ko munoo ku sa sa caat mooy ki fi nekkoon tey mu ma siis mu ne ko yaay mhm. mën bi boobu laay dooru dugg si TFM xale bu ñëw ci télé jur maa leen mhm. nàmpal sama ween bi nii la ko defee jour boobu ci ak bokkoo ci de ma ne ko force sama yaay ndeysaan <laughs> ñëpp la juróon wallaay ndeysaan ba ci kii nekk ci vigile bi di nettoyé wu ki nga xamante ne ci bunt bi bàyyiwul kenn bëgg ñi nekk ci région bi xoola image bu ñu wane ñoom Babacar ah, ñoom Daouda Gueye loolu muy lu yàgg loo xamante ne macha allah mais xam nga man li ma ci jàngat rek mooy ginnaaw mbaax bi ndax mbaax may wër na àddina macha allah mm-hmm. jikko ji tamit wër na àddina macha allah ak melokaan bi parce que comme ni ñu ko doon waxee elle avait le de la beauté le sens de l'élégance xamoon ñu war a ah, ko du sañse ba nga xamante ne bu soloo nga ne daanaan kulli fadrin xet bu neex ba pare naan la jigéen da ngay yeesal sa xet maman macha allah dafa bëggoon lu baax ba naan la sa balcon da nga ca def andu balcon ma naan ko maman ana ànd ak balcon mu ne ma waaw dafa baax dëkkandoo yi cuuraay gi léeg-léeg di jol-joli ñu naan kii kër kan la kër kële la ëllëg ñu di la ko fàttaliku donc tey xam naa ni ci an Mariste boobu seen xel ak seen xol yëpp dina dina tooy ndax danañ nam xetu cuuraay ba fa doon la di fa jóge te jógeetu fa waaye lu mu ci munti doon rek mooy valeur yi man moom laay wax parce que jikko ji. xam nga nit di nga ànd ak moom mais boo seetoo ba ci biir dem ba ci biir maanaam gis bëgg. Mm-hmm. miin bañ dafa am. Mm-hmm. mais moom doo ko gis bëgg miin ko bañ. Mm-hmm. da nga koy gis bëgg ko. waaye boo ko miinee ci nga koy gën a bëgg. ndax la ca biir. la ca biir mooy lan mooy nit ki nga xamante ne dafa amoon diine. am iman te loolu da ko nàmmee ci waajuram bu jigéen mooy ki nga xamante ne moom moo di Kamara Jibi Anta Boy mère bu sedd ku wax lépp nag dangay catu doomu jàmbur waaye li ma naan sama catu làmmi nag sama xaala xii na mhm. amul bës bu dul jot waajuram bu jigéen du wàccee kaamil munta ne c'est kon kooku bu ko déggeen defee da ko meññee ci ay waajuram mu jigéen te ñoom ñëpp nag ba ci mère g bi nekk ci biir suuf oh. ñoom maman Nafi Chimère ba ci cat tata ak ki nga xamante ne macha allah aussi moom mooy tata ulli donc seen yaay daf leen nampatal ci loolu mais jox leen ay valeurs dégg daawul jëw ñi ngi ci télé mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen wallaay ndeysaan ci li ma fekkee bëggul wax waxi jàmbur loolooy dëgg danaa la noppi gar boo leen toogee mais xam nga mun na ko wax ñu ne yëfi tele la waaye man mm. mi ko jege dugg ci biir këram dugg ci biir néegam xool ko mun nga fa toog mm-hmm. nit ku nekk nit nga kat mm-hmm. léeg-léeg man mii ma kaa bu baax keneen kaa <laughs> li ko firndee la ngeen ni am na benn groupe bu kaa bu fi xew bu yàggul dégg naa waaw <laughs> dégg naa bés biñ ko créé dafa fees dell maa ngi ci tele mm-hmm. groupe ci Facebook ñu bindee ko groupe bu kaakat yi yaay laa lilaa chaque jour ngeen tàppe dossier waaye moom daawul tàppe dossier ci lu baax xanaa nga ñëw wax ko kenn dara dal na ko wala yéen ñaar xulloo ngeen mu defaraat ko te kenn ko yëg sangam bi bu ñëwoon maître ba bu papa tamit maa ngi koy masaw bu baax a baax di ko nuyu bu ñëwoon maman ci 6 ans nit di nga def benn yoon ñaar ñett waaye bu ñëwoon pap maman day raam oh. mu bi day raam nag man ma mer naan ko non non maman arrêté raam amoon tournage ne ko may sa baabu jonaay ba waaw man dañu amoon tournage 6 ans xoola oh. mu ñëw bàyyi tournage bi daw mu ne dama koy dem taajalil ndogoom ba mu dellu si waat besel loolu moom tournage la ñu amoon jamono jii ba ci man mii roy naa roy roy roy ba àddina yëpp nee ma dama ko nuru te nag ma koy nangu nag macha allah yàlla mel ni booy da ngay roy lu baax waaye nee naa la man raama lu ma sang waaw waaye maman dafa doon jóg mi yaa nga baal ma sukk def nii ne ko may sa baabu jonaay ba ba papa romb yaa xajaa mujjee bi ma yëkkati ko boo ko yëkkati mu naan nii du xam nga maman nu mu meloon day sor waaye da koy def jàngale la rek ci 6 ans man baax naa bëgg naa yooyu waaye kaay bu ma la raamalee suba nga manquel sama dépense dinaa la naan nii <laughs> waxtaan wax dëgg ca la wax dëgg daf ko da day am njëriñ dafa baaxoon mais nga doon sax dañ ci dul sax macha allah dañ ci dul sax moom du ci sax loolu la surtout loolu xam nga comme li nga wax waa li nga sax ci loolu moom mooy moom mooy euh, mooy jafe jafe mais parce que ñun xëy na di nga ko def ñaari fan ñetti fan après ah góor la waa kay ñu jox la dépense suba duñ la jox bu fekkee gis nga tey defaru takk lu baax ñu nekkee ma ngay liggéey ci télé Youssou Ndour ba li muy fayeeku bare na macha allah ci kaw kon nag na nga wàññi ne ma ana kii kii jabaru directeur la ah déedéet na nga wàññi waa non dañ naan ci am la belle vie waaw bare non ah. wala ñu ne la dara kon xam nga buñ ñu ko defee da ngay jékki saay naan hmm, waaw ah, sa xol du nangu wala leneen mais moom du ko def ndeysaan kon nag Mia ñuy may benn clip rek ñu dellu